Omar Faye yow laay interpellé parce que euh, euh, Cheikh Omar tout à l'heure peut-être am na lu mu jot a xam ci ci vidéo yi peut-être dinañu ci dinañu ci wax dara euh, est-ce que tey yaakaar nga police ak justice que dinañ mettre les moyens faire une enquête sérieuse pour situer les les responsabilités parce que fii il est il est ñuy jàng à situer les responsabilités su yenn affaires yi am. xam nga dama yéex a ñëw. comme d'habitude. mais campagne. moom sama façon mooy campagne <laughs> di nuyu invité yëpp di leen ziar bu baax di wax déwén ci Sénégalais yëpp. Mm-hmm. nee na réew mi doomu aadama sax la ñu respecté doomu aadama te commencé wul tey de ju de de cinq heures jusqu'à nos jours ñiy dee ñëpp est-ce que leer na amul dara lu ci leer amul benn enquête buñ fi def mu dem ba egg. moo tax dans ce pays il y a de liberté provisoire ci li mu mën doon dañ lay defal liberté provisoire par nañ ci yow dem nga mais lii du tey peut-être bii tey la dafa bees. yàgg nañ ci wax. mais yàgg no amul yàgg nañ ci wax dafa yàgg am. Mhm. commencé wul ci régime bii dafay nekk ci régime yëpp te buñ la jàppee dañ lay torturer def nañ ma ko def ko ñeneen mais bien sûr li ñuy wax ni dañuy wax nii rek dañ lay ñëw non seulement dañ lay mënute. sànni la noonu si oto bi. <laughs> parfois dañuy jël jàpp la sànni la si oto bi parfois tamit y a un problème de formation des policiers ñeen dul formé da ngay gis jékki-jékki kenn kenn jógee fële rek dem ñaari kii nga ñëw indi ko on les forme pas mu am problème ñu indi ñu indi leen mu am problème. mais ce qui s'est passé mais mais ce que problème de fo enfin. parce que j'ai l'impression que benn parti rek la ñuy jël xam nga tey dañ lay wax ne que euh, am nga droit exercer la violence mais de manière encadrée. Euh, soo koy exercer tey dafa war a nekk lu euh, proportionnel mais on a l'impression que ñoom exercer la violence bi rek la la ñuy def. parce que même pour parler même pour parler aujourd'hui je ne dis pas tout le monde mais certains ay dégagez mettez-vous là. moom laa lay wax yooyu ngay def c'est-à-dire que parfois da ngay yow da ngay ñëw sax. ñoom ñu exercer violence nga ñëw ne noo sëñ bi dafal ndànk jarul yëpp ko xaaral rek mu ñu ne ma mais parfois dañ lay saaga sax à la limite day gis nga xamante ni ne sa sa jarbaat la wala sa moroomu doom la wala sa kii la man mu am ak yow comportement boo xamante ni dafay ñaaw sax en premier lieu et ça c'est c'est c'est dangereux yow da ngay respecté bi jox ko ak xam jox ko cëram mais ñoom ñu am ak yow comportement yoo xamante ni sa waay am na nooy demee mais tam nga tam nga tam nga agir parce que nit aussi doo ko laal dignité am dignité rek la am mais ce qui se passe nee na c'est inacceptable parce que si ay fee kese rek la ñuy basé wu yow déjà boo ñëwee police boo takkee jaaro nga takk téere nga sol ay dàll nga mën jëf dañ koy tekki. pour sa sécurité. pour sa bi rek dañuy tekki nañ sa ak quel que soit de ndombo di ko tekki. quel que soit jaaroo yoo takk wala montre dañ koy tekki donc noo mën a toogee pendant treize minutes nga def loo xamante ne ni war nga mën a nekk dans une situation de comment c'est difficile d'autant plus que foofu tàng na tàngaay boo xamante ni ne amul benn policier bu mën a nelaw parce que ñun si ngunu ginaar lañ ne. Mhm. dem nañ ci commissariat yi c'est des ngunu ginaar tàng jër nit ñi nekk fa te lu mu néew néew néew dina am au moins trois ou quatre personnes yoo xamante ni nañ nekk en garde à bon peut-être lui il était ailleurs si je ne pense mais li am moom ñëpp koy ñaawlu d'abord d'abord geste bi moo ñaawlu li ma procureur wax sax dugguñ ci dugguñ sax si fay mais déjà li am rek mhm. dafa ñaaw te je pense que famille am amuñu intérêt mhm. taxaw di wax lu xamante di wax du xamante ni ne quand du ay ay waxu caaxaan la ci situation boo xamante ni ne si moom lañ tegoon moom lañ tegoon waa ji donc yii c'est des choses à bannir maintenant réew mi dem na ba nga xamante ni ne c'est-à-dire dañuy wax rek bàyyi duñu ñu topp dara ñun fu mu nekk nii li am ni deux jours pare nañ ci wala trois jours quatre jours ñu pare. beneen actualité ñëw. non beneen non non pare nañ ci. et pourtant les gens doivent suivre et ceux qui doivent suivre en dehors de ces gens-là ce sont les avocats dem ba jusqu'au bout dossier bi fu mu ñu ne fii la toll lii ak lii lii ak lii ak lii ak lii mais bu ñu demee ba quatre jours cinq pare nañ ci. c'est-à-dire doomu aadama ci boppam doomu aadama bi ci boppam cër bi ñu ko war a jox gëddëm ci moom la amul mais ça c'est c'est à la limite c'est c'est inhumain ce que ce que ce que ce que amul benn doomu aadama tey bu nekk fii ak quelque que soit sa position ngay rafetlu lii lii yëpp koy ñaawlu et c'est des choses à éviter yii dañ ko war a éviter fii gisuma fi lan lu xamante ni ne war na mën a tax nga jël nit torturer ko à ce niveau on parle de force spéciale ñun ñaa ngi déglu xam force spéciale ça parle de quoi en attendant mm mais jarul quand même ñu egg à un niveau moomante ni peut-être je ne sais pas quel est l'objectif visé bu fekkee dafa am torture quel est l'objectif visé dans ce sens parce que sénégalais aussi bu situation ame bu waxee wala keneen wax ñu lay wax les principaux responsables wax ku ci da ngay toog di analyser mhm. si analyse yi nag da nga koy teg si ay actes mais quant à treize minutes procureur waxe treize minutes man je ne parle même pas du procureur c' est le ministre lui-même qui doit démissionner c' est le ministre de la justice lui-même moom. Ah à chaque fois bu waxee rek jëyee lay wax. am na situation yu am yoo xamante ni c' le ministre qui doit sortir et qui doit parler mais moom malheureusement moom saa yu waxee rek waxu jëyee lay wax et ça c' dangereux. kii c'est un être humain nit nag dañ ko war a fonk. d'accord jox ko cërëm xam ni ñu def mais maa lay wax ne la quatre jours laa la may wax ji pare nañ ci te lii nit ñi dañ ko war a topp ba mu jeex te du moom rek sonkaade am na ñu bëri ñoo xamante ni nee na ñu ngi leen di tëj prison wala di leen yóbbu rëbës dañ leen di mettre dans des conditions yoo xamante ne ils sont obligés. d'accord Omar yoo xamante ne nawul woon seen xel. très bien pour rek am jàmm. Mhm. ça c'est des choses à éviter. man gis naa ñu bëri ñoo xamante ne tey avoué nañu loo xamante ne defuñu ko parce que nee nañ situation yi ñu nekkoon garde à vue. dañuy sonn ba dañuy mujjee avoué dañuy sonn ba nga xamante ne ñu la ñu ñu laisser maintenant on va voir di wóor te wóor mooy dinañ def autopsie une enquête sera ouverte mais ngir yàlla ñi war a topp enquête bi ba nit ñi war ñëpp xam. ce mm-hmm. qui se passe. Mm-hmm. nañ ko def jusqu'au bout. d'accord pour que sénégalais yi dorénavant ñu xam ne ay nit nañ. police gars yi respecté nañ leen gendarmerie respecté nañ leen mais quand doomu aadama yi ñu jël di mën na di ñu mën di leen teg mën na ay yoo lañu comme yooyu nekk Tëngéej yooyu dafa war a jeex. alors euh, Omar euh, cher Omar euh, euh, justement euh, dañoo gis sortie ñii di Amnesty International section Sénégal ñu wax ne que dañoo war a faire dañoo war a def benn autopsie. Euh, autopsie ñu ngi koy dégg aussi ci ci yenn cas yu bëri mais est-ce que yaakaar nga autopsie ñëw euh, peut-être wane loo xamante ne kii di euh, procureur waxu ko ak quel est le rôle justement ñi sàmm ak ak yelleefu doomu aadama est-ce que bii war nañ ko mën a ja bàyyi mu mu jàll comme yeneen mu jàllee. waaw damay féliciter Amnesty à travers di gasama parce que mu ngi jouer rôle am. Mm. mu ngi jouer son rôle nous sommes au de l'impunité nul n'est responsable et personne n'est coupable oui am nañ treize morts ba tey kenn xamul kan mooy responsable kan mooy coupable stade Demba Diop tabax nañ ko match am mur bi daanu ñu am ay bakkan yi faatu personne n'est responsable personne n'est coupable bu ma wax autopsie parce que Cheikh Niass mi nga xam ni dafa doon ñëw pour def màggal ci contrôle de routine mhm. mu mujj ñu téye ko mu faatu après on nous sort une version pour nous dire que dafa feebaroon wala dafa nangam mais ci cas bi li ci metti mooy Omar Faye il la dit ah nous sommes deux vingt deux euh, un jour dama doon seetaan vidéo benn pas il s'appelle je crois Modissi actuellement yaakaar naa Macky def ko nommé woon après PCA SONES il racontait torture yi ñu ko defoon yóbbu ko gendarmerie cong sur l'affaire Maître Babacar Seye yóbbu lañ ko géej takk sax ay bëtam gas ko j'ai pas pu regarder pas bi mu jeex parce que je me disais ce que c'est ñu koy def Sénégal wala est-ce que c'est possible nit di tiim moroomu di ko def yenn yi mhm. les jeunes de Colobane ils ont été torturés loolu moo tax procédure bi antuwul parce que jël nañ sax courant di ko marché seeni awra ça ça se passe nulle part hein au Sénégal nous sommes et lii nga xam ni dafa am moi j'ai la vidéo de la femme de de, de François j'ai vu une femme peut-être euh, ku jàmbaar ku am dal ku ku am ngëm ma déglu ko j'étais très sensible parce que moom moo raconté récit bi ci yan circonstance la fekk borom këram sur une chaise roulante bopp bi yëpp nekk deret bu mu ñëwee laaj ko mën na ko gis nga ni ñu ma def c'est sa femme qui raconte kon interrogation war ci am le procureur la pour son baptême de feu il nous raconte une histoire yu kenn comprendre après là il revient pour moi sa communication a été catastrophique mais c'est normal parce que moom ministre de la justice aussi à chaque fois que ñu def seen sortie euh, loolu mooy li xale yi ne dañ lay jox Doliprane mais bii nii moi je peux pas avaler ça parce que gëw sa version des faits li tax ma mën ko gëm mooy ñu am une autopsie bu leer def une enquête indépendante su fekkee ni qu'il s'avère qu'il a été torturé que ces tortionnaires répondent de leurs actes point pour man loolu la parce que nit bu ñu la jëlee yóbbu la en détention ki la téye moom moo am responsabilité téye la mës nañu fi jox benn version ne daa am ko am dañ ko jàpp ci biir ci détention après njàmpe la xaroo yooyu yëpp transitaire bi ñu jàppoon nu mu tuddee éliment xaw ma lan ci ci garde à vue la liste macabre va continuer parce que tout simplement on va pas régler ça beneen bi euh, tey bu fekkee ceux qui sont censés nu protéger si ñoom lañuy tegu seen loxo après suñu bakkan kon tey ça peut arriver à tout le monde c'est-à-dire mën nañ la woo pour enquête la man normalement ku ma woo dama lay wuyu parce que jàpp naani boo ma wooyee ma war laa wuyu mais su fekkee ni dañuy toll ci situation de peur boo xamante ni ñi la waroon a sàmm war la aar yor sa kaaraange bu dee ci seen loxo nga mujj hôpital principal ngay dem urgence après nga faatu après on sort un document avis de décès pour nous écrire accident mort accidentel pour pour man c'est du pipeau sénégalais du ñu ay kaña quoi xam nga kaña deewu kaña après nga dee deewu kaña du mujj fenn est-ce que du point de vue humain d'abord nañ ko wax foofu mais tey même pratique yi ñu doon am bu njëkk ba moom la ñuy continuer du am mais je crois que ici la responsabilité de la police elle est engagée la responsabilité de l'administration pénitentiaire et même de la justice elle est engagée on nous dit que l'autre dafa évadé ci kuñ ne dafa am insuffisance rénale yóbbu la pavillon spécial mhm. di la garder Sénégal nan nga fi Sénégal mënoo fi def toj-toj léegi léegi léegi léegi te duñ la lijjën te duñ la gis donc nag euh, bu amee dafa dafa baax pour une fois ñu bañ ci indi par parlo ne serait-ce que pour sa euh, sàmm ak ak yelleefu doomu adama parce que doomu aadama dafa fort dafa foor doomu aadama sénégalais du kaña quoi du koo xam ne da nga koy dóor brique mu wàcc. après comme si de rien n'était donc pour man. Mm-hmm. du question de déclique mais tey on a eu treize morts ba tey mënuñu ko situer bi ce sera un mort de plus mais ça devrait être un mort de trop pour que une bonne fois pour toutes que la lumière soit fait ñu situer les responsabilités ba képp koo xamante ni ëllëg bu ñu la téye ci détention nga jàpp ni man fi ñu ma yóbbu mu ngi tudd sûreté je serai en sécurité mais su fekkee ni à chaque fois qu'il s'agit de la police ou des autorités sécuritaires dinañ ko coow ñetti fan ñeenti fan après du mujj fenn voilà foofu la ñu toll très bien alors on va laisser la parole maintenant euh, à Fatou ñoom nee am nañ vidéo le procureur toog na fi nee am na vidéo xaw lan. Mhm. ils n'ont qu'à nous édifier parce que nous aussi nous avons droit à l'information pour ñu mën a xam pour ñu mun ñu édifier. très bien daaw force occulte ren force spéciale peut-être déwén il va venir avec des forces extraterrestres. alors ñu ñu il faut pas que ñuy apeurer sénégalais parce que ñun lu soxla mooy dal ak quiétude et que ñu sentir ci euh, waxtaan wi waxtaanu euh, yoonu assemblée bi ñuy commencé par l' affaire euh, Mancabou ak Mamadou Seck alors moom la ñuy continuer puisque c' est l' actualité phare de la semaine Fadilou le procureur de la République annonce une enquête est ce que aujourd'hui enquête boobu nga xam ne annoncé na ko moom le procureur moom moo war a diriger cette enquête déjà Fatou Abdou man li ma njëkk a wax mooy xam nga